asalaamualeykum wa rahmatullah tey ci suba benn ndongo moo doon dem jàngi ca lekkoolam waaye nag bisub tey bii jubalul yoonu lekkool waaye ma nga jëm ca sëkk ya sëkk mooy armel ba xale ba àggee ca sëkk ya mu jël ab saagam sànni ko ca bàmmeelu yaayam di jooy jooy yu metti naan yaay nelaw yi doy na jógal nga ànd ak man nu dem ca sunu lekkool nga tontu sunu muse mii nga xam ni bis bu nekk def naan ma sa yaay du la toppatoo du la jox nga ndékki du la sang du solol yére yu set du la nga jàng ci kër ga xale bay yu metti aw ak naqar mur xale ba ndax kat fa taxaw di wax du ba mu kenn ku ko fa tontu la ko waral nag mooy naqar ak tiis wum jëlee ca muse ba koy jàngal ca lekkool ba kon nag ñun ñii di ay jàngalekat bokk na ci sunu wareef mooy saa bu gone gi ñëwee ci lekkool bi nu dalal ko doon ndeyam ci lekkool bi doon baayam ci lekkool bi ba ab xolam féex nun jàngalekat yii kat yenn saa yi nu gis xale bu ñëw ci lekkool bi waxtu génn jot dong yépp di ndékki am ko taxaw ca ruq ba amut lu mu ndékkee boobakat du ca xale ba waaye yàlla defalul wërsëg ay way juram yenn saa yi day nga gis ndongo lu ñëw ci lekkool bi sol yére yu doy waar bopp ba cuqaara lool fekk du ca xale ba waaye nag yàlla moo defalul wërsëg ay woy juram fekk ay woy juram jóg nañ ca teel ngir toppatoo ji lu njaboot gi dunde kon nun jàngalekat yii day sunu wareef mooy saa bu gone gi ñëwee ñu wan ni ko kat yaag ñépp a yam yaag ñépp a tolloo su ko defee xelam dal ci lekkool bi ba loo ko jàngal mu dégg ko bu demee ca kër ga it day jàng bindam day kontaan day sawar ngir bu dellusee ci lekkool bi mën a bégal museem comme ni ko muse bi di bégalee ci lekkool bi kon nun jàngalekat yii nanu bàyyiwaat xel kàddu yi nu dugal ci noppi gone yi ndax benn kàddu mën naa dimbale ak gone ba mu réussir ci addunaam waaye benn kàddu mën naa yàqal gone gi ba addunaam jaare fa yàqu na ko bokk bàyyi xel wasalaamu aleykum wa